Bango laa nekk bàngoo écrit Soumbédioune. Bébé Diène bu fekkee combat benn man fonk naa ko téeméer. barke sëñ Abdou Karim Mbacke boo taxawee dama lay duma boo bëree dama lay daan. bu fekkee gor la rek yaa ngi dégg de na taxaw nu jaayante ko ma ak moom waaw daa ñeme xeex ak man. ñeme na lu ko raw. barki Seydina Limaamu booy kareet ko xeexal man pour muy leer. barki Serigne Touba Mbacke booy kareet ko xeexal ak man. Ali Mbaye na toog kër ga. Sidaati mooy ñëw. waaw xaali Mbaye dogoog xaali Mbaye la ne ci bokk yam day toog kër ga bébé bi ñëw waaw damay toog kër ga boo xamee na toog kër ga xajal kër tournoi bi tournoi doom ñëw ak ñeneen ñeneen ñi de incha <laughs> waaye xaali mbay la waaye dëgg ngay ndellu rek xam naa sonn si ma wala daggal yàpp ak foie tabaski bi xam ma nga lekk ba suur xëy lënd bi dem saal pompe say affaire bàyyi ma njoot bàyyi ma la xel sax ah man day mbër mu xees ma daan de en tout cas mbokk internet Lutte TV ginnaaw bi ñu leen rek Papa Ndiaye di ñu ngi fii nag yaakaar naa défoncé ah seet waaye nee ba tey maa ci di ko ñàkk a dégg mbër la nag champion def ay preuve am def ay carrière bëreek mbër yi gën a naqare tey si Sénégal xam nga ku bëreek rëg-rëg bëreek ëbëli ah, bëreek ñeneen ak ñeneen yaakaar na ne bëri nga ay combat yu métti bëreek Grand Mbagnick waaye nag avant dañ koy dalal rek kookoy Pape Yékini champion ziar naa la. waaye si ñu lay ziar Boucar ñu ngi lay ziar di ziar waa Lutte TV yëpp di ziar waa RIB bi di nuyu ku ci mel ni Seexuna Seex Jaxate nga xam ne moom laa nekkal di liggéeyal fii nuyu sama gars yi ak fan si club bi nga xamante ne ñoom fàllu ñoo ko jiite di nuyu ñëpp ak nuyu ñoom fay ñoom ñëpp maa leen di nuyu waaw di la nuyu yow mii. loo waaye maa ngi nii rek Boucar ci dama nekkoon rek nekk ci ruq rek. ah waaw nooy def affaire yi làmb ji xam nga bu méttee moom. dangay nekk ci ruq rek nekk ca la nga war a nekk bool kook liggéey bi waaw bu diñ liggéeyee bu ñu wàccee dem entraînement ca la nekk rek seen ji ni muy doxee nii loo ñu su mën a wax par rapport ak maanaam tey ni fi ko nit ñi ñëpp doon xaarane parce que lamb euh, jamono ji la a neex parce que jamono ji la xaalis ëpp waaw non lamb ji jamono ji la waroon a gën a neex parce que jamono ji la xaalis ni nekk wante nag ci la gën a yàqu waaw parce que teggante bi daa bëri waaw du ma wala bu bëri du ma bëri diw diw amul supporter yooyu noonu yooyu moo yàq làmb ji te yooyu dafay war a jugee. moytuwante bi bi na. waaw moytuwante bi daal la ñu war a bàyyi champion yi moytuwante la ñu war a bàyyi sinon lamb yi day dee day gën a dee rek. moytuwante bi nag li ko sabab est-ce que nekkul ragal dafa mel ni li si ëpp ragal am pagaay tapete da cee bari parce que da ngay seet da ngay seet si na la diw ngeen taxaw ba combat bi war a taxaw ba mu des ay une semaine wala deux semaines ñu ne mu ne làmb ji yàqu la parce que samay mbokk wax ni du ma ko jël parce que kooku baaxul làmb ji nangama naa loolu dundal ko yaakaar naa bu dee simple bi nii comme li am démb ordinateur bi euh, kii ni ñu ko waxatee sax euh, dur saane bi xoolal bu doon moytante la duñ bëri parce que lit lit simple amul lool lit simple la ñuy tirage rek ne la yow ak diw la te da bëri far force kon nag lit lit frappe bi war nañ ko mën a war nañu mën a def bu ñu lay joxee diw nga am ngor ko nga yaar ne mbër nga dagg sa licence di entraîné di rey sa bopp ci géej bu ñu la joxee diw da war a mën a jàmm sa ngor bëri ak diw boobu. loolu mooy boo a mënee sax nga dem bëri. déggoo wax ji ñun jamono yi ñuy dugg ci la àll bi ñun amuñu woon dañ daan ñëw fekk poids lourd moo amoon jamono yi poids léger amul da ngay ñëw tànk la nga amul da ngay ñëw dugg ci luur bi loo am jël waa léegi neex na léegi am na tànk am na raw gàddoog yëpp am na waaw léegi war làmb ji war naa war a gën mën a neex quoi mooy dëgg war a gën mën a yaatu waaw. loolu hmm? daal moo ci nekk làmb ji daal fu mu toll mooy tënt bi bari na ba pare tamit euh, ñi nekk ci kaw tamit mooy loolu quoi làmb yi xool làmb yi fi jaar yëpp fu mu toll nii yëpp ay recours recours waaw. jamono ay blessure ay blessure blessure jamonoy Alioune Sarr gars yi ñoom ñu def lii li ñu def nii amul woon Alioune Sarr boo ko defee mu yóbbu la clinique am na la kaay hmm. ah. ah léegi ah waa sa waay loolu mooy dëgg loolu mooy dëgg gis nga ay ay nit bu ñuy jëngi nit boo nekkee gor boo waxanteeg sa moromu gor ba pare gis nga bu la joxee sa avance jox la xaalis bi nga koy jënd ak say lekk ak say njaboot sëñ bi war ngaa mën a am gore gore bëri ji man ba may bëri au bëri ñëpp xam nañ ni mu demee ci laal hôpital laa ñëw bëri si laa jugee billaay billaay wallaay mosuma koo wax nag wala ñi ñi tëgg làmb ji xam nañ ci dara ci laal hôpital laa jugee ñëw ba bunt stade ngeen bu dugg ci biir bëri te man bu man maa ngi samay maa ngi samay lépp baa ngi ko waaw non déedéet parce que loolu am na yoo xamante te nii sa waay loolu boo ko defee boo ñàkkee bare ñànk dëgg mooy loolu am na yoo xamante ne rafetul quoi góor daal da ngay nekk góor ba kay kay xëy dee looloy dëgg depuis sa combat ak Obeuli est-ce que ah boo booy bi nekk euh, Kër Massar booy bi nu tudd sax. Euh, non déedéet booy bi nii kii ànd doomu kii bi doomu Cheikh bi. Jokal doxoon nañ ko fi Jokal dem jëli ji kii ñaar ñaar deux après ñu demaat ba ci biir par la suite gars yi di ma wax ay combat ah gars yi daal fan yi ñu ngi may wax euh, ñu ngi may wax euh, ordinateur fan yi waaw ah, xam naa ne lu xam naa ne du lekk avance bi moom avance ko lekk. ordinateur nee ko fay bàyyi man maa ngi nii man amu ko fi bàyyi amu ko may teggi. man ordinateur bi fi gars yëpp bàyyi champion du Sénégal champion d'Afrique yow nga ne moom nga bëgg a jël avance. Reug Reug ba may bëre moom mu ngi ci 23 millions man ma bi ngay bëre rek rek. billaay walaay denc ma 12000 francs yi mat laa la wax te moom mu ngi ci 23 millions ñëpp naan moo moo téye bi ko të mm. ngeen bëri combat bi ngeen mu demee parce que am na ñu naan ne yow lañ jox victoire ba nga ñibbi. déggoo wax ji man maa ko daan loolu amul leneen Maxime Bergane mu ngi ci plateau ba Malick Thiandoum mu ngi ci plateau ba ñeneen ñeneen ñu ci plateau ba man maa ko daan waaw dañoo bëri xeex ñu génn saako ñu ñëwaat ma woo ko ci xeex mu daw sàcc ma daw wëri ma nomb avant ñoo ma ko xanaa su ma ko kon Yékini daanul Baboy su ma ko daanul xanaa Lac de Guiers kon daanul Baboy waaw kon nag jiyaan am na jël yoo xamante ne ni bu ci nit toogee ci télé bi nii di ci commentaire naan daanu kon diggante mook Sa Thiès rek nu mu demee rek tey ji yàlla leeral écran yi tàkk lay demee rek dañ naan jéem nangam ak nangam nga nit boo ñàkkee da nga xam ne da ñàkk da nga am ñoo daan daan muñ dem ñibbi te jamono jooju média yi bëriwul comme ni. non am kay média yi am na télé film yi làmb ji mu ngi fi bële boo ko tàppee mu génn waaw saa dama ko daan de dama ko daan jël bu leer nañ boo amul benn werante wax ji la war a bàyyi wër ci média naan daanu ma daanu ma dama koo daan keroog bu ñu bëri saakees saakees wax na ko ba mu bëri gris deux wax na ko kon ñooñu ñëpp bu ñu toogee seen làmb ji seetaan la xam nekk ci làmb nga nekk mbër nekk champion am na loo xam da nga koy nangu sa morom moo gën a waaw dama ñëw si kaw ordinateur bi jamono ji sax ñoom ñu ngi waajal pour dem compétition francophonie yaakaar naa démb aussi gis ngeen ah, arène nationale ñëw na fa ne waat boppam def ay preuve am duñ ne dafa mer ngeem waaye mën na daal ay bagage am néew na lool lool lool ci takkuwaay ak yu noonu yàlla ñëw na sutala ko yàlla sutala ko ba mu jël làmb ji ñëpp ba fi depuis daaw ñu ngi koy wutal ay adversaire koo wax mu ne duma ma bëri ordinateur Pape Yékini nag fitam wu rëy xaw ma dafa am luñ ko déy xaw ma lu mu yaakaar. non du question dee sax gis nga maanaam ñun dañoo nekk ci làmb dañ cee fo làmb dañ cee yàgg parce que tey jii nii maanaam làmb presque boo xoolee ku ci mel ni Maxime Bergan ak Paa Yéli Jaxate ñoo te ci làmb yàlla na ko yàlla yërëm suuf oyof ci kawam Paa Yéli Jaxate moom moo ñu dugal ci làmb nee làmb boo demee ba ci ba jëm jël sa morom rek boo fekkee da nga ci da nga ci am ci xel ñaar rek jaru nga mën ngaa bàyyi waaw ba may jox ba may jox Maxime mu nekk xale bu ndaw di dem caaro yi ba mu ne yooyu noonu su ma dem caaro yi deux heures su ma añ ba pare daw dem caaro yi bañ tardé entraînement su ma mu may bëri noonu yàlla ko ci yàlla may ndam rek kon ko suñu drapeau lay yóbbu foofu noonu moom bu soobee yàlla moom yàlla na ko yàlla may ndam rek waaw bu ñëwee fii nii drapeau bi ñoo ko bokk de amul loolu de. waaw waaw. kon combat bi bu taxaw nii du yomb bu ñëwee fii gàtsa gàtsa lay doon fii amul loolu ma ne ko fii bu ñëwee fii gàtsa gàtsa lay promoteur bi kay tëgg fu mu toll nii man pare naa su ma seetsee tey tey tey tey bu ne woon ginnaaw suba man pare naa man amul mbir ma jëlu ginnaaw bu kan. Hmm. billaay wallaay lu leer laa lay wax ndax jamono ji neexul ma bàyyi gars yi bi waxee ñu naan ma waroo jël mbëru séeréer yi ndax nangam ak nangam mbëru Dakar mbëru Dakar duñ jël duñ jël kenn ay boo yi nekk yi duñ ay tapet lañ xam nañ fu mburu bi di xoyom xoyomee duñ ko jël hmm. déedéet waaw su Pape Yékini daal en tout cas ku ko jël déggoo wax ji de ñaar yëpp ngay boole am na beneen am na leneen lu ci gën a bees sax leneen luñ dencaat fu toll nii Ah. lu leer naa rek am na leen luñ denc suuf lu gën a garaaw loolu lu ñu ko wax dañ bàyyi rek mu nekk mbaa da ngaa gas jamaa non c'est que waxuma la gas jamaa romb naa jamaa di wéy hmm. fi mu toll nii maa la ko wax pétrole bi gars yi di wër nii mi ngi sama loxo ma téye fu mu toll nii pour l'instant maa la ko wax yaa gis site bi moo yow kenn da ko ah loolu du yomb waaye non sa waay déggoo wax ji bu kan bu yi fi nekk di wax nii rek mooy loolu waaw ah, am na yoo xamante ne nii nag moom nga wax feeñ da noppi rek bàyyi rek def li ngay def rek waaw yaakaar am na solo kon promoteurs yi la ñuy interpellé waat rek combat comme que ordinateur moom yuuxu na fu ne ne combat la bëgg supporter am yi ah ñoom ñoom ñoom sekk depuis Espagne ah doom day ordinateur Ibrahima Diouf sama waaj gars yëpp yuuxu nañ fu ne ne dañ bëgg seen mbër am combat adversaire nga ni taxaw nee bu avance bi ñëwoon tey tey mu yóbbu kër gi loolu kenn waxatu ko loolu kenn waxatu ko fi mu toll yi combat bi ñëpp ko bëgg fu mu toll nii fu fu ne lañ may wooyee waaw man nag moom aw ma aw ma fi ñaari mbër damay nekk fi pour mbër. ku ñëw ma jël mais ordinateur man loolu moom garaawul waaw man loolu moom métti ma ko man xam gaa yi xam nañ loolu ci man waaw. waaw gis mooy loolu. maa ngi lay bëgg boo amuloo di ci gën a yokk mooy maanaam yàlla yàlla def ci réew mi jàmm waaw yàlla yàlla def ci réew mi jàmm suñu mag yi nga xam xamante ne ñoo fi tëdd yàlla na leen yàlla yokk seen seen taas seen barke waaw adduna bi ñoo ko bokk amul solo gisoo fii moom lépp loo gis ak après nettali lay lay mujjee waaw ay wax xale yi ñu maanaam ñu moytu ndox mi quoi ndox mi ñuy dem ñi gaal yeeg yooyu dañ ko moytu bu baax a baax nañ toog fii te xaar yàlla suñu borom baax na. instant yii nekkul aussi dëkk bi métti xam nga aussi am na loo xamante ni dëkk bi dafa métti loolu aussi foog nit ñi xam ko gis tey ku fi jël gaal wala nga def leneen ak leneen ma da nga koy def malgré yow parce que tey ba fi sa njaboot di wu dem wuti woo dara lu dul teraanga da ngay ne si Sénégal fii di liggéey yor sa liggéey yor sa métier gars yi duñ ko bàyyi ak yow da ngay yor sa kalandoo gars yi duñ ko yow da ngay yor sa marchand ambulant di lal si mbedd mi gars yi duñ ko bàyyi ak yow da ngay yor sa liggéey bu sew di si foraatu boo foraatoo junni gars yi duñ ko bàyyi ak yow loolu aussi foog ñi ñi xam ne ñiy jël mbënd mi man encouragé wu ma leen mais ñiy jël mbënd mi dañ koy jël malgré ñoom dëkk bi dafa métti da ngay liggéey da ngay jàng sa am say diplôme doo gis foo liggéeyee foo def stage sax doo ko gis da ngay liggéey am sa métier jàng def sa formation am sa métier wala nga nekk soudeur wala nga nekk leneen pour nga liggéey c'est tout ton problème loolu aussi foog nit di si bàyyi xel. waaw tamit xam nga tamit yeewoo ci kër tamit euh, yor papa yor yaay yor ay frère ak ay sœur yooyu noonu ñu yaakaar ci yow xam nga mm-hmm. am na loo xamante ne gor moom ko quoi ba gor boo ko laajee tey laajaat ko suba te joxu rek bu subaa mu xool mm-hmm. loo xamante ne maanaam taxaw léegi nag lii problème bi mooy ñun suñu gouvernement bi ñoo ci war a jàpp quoi wala la kon ko booy bëgg nañu dem te bëgg nañoo liggéey dañ leen jàppale yombal leen visa yooyu bu ko defee booy dem liggéey kon ko ñoom bu ñu liggéeyee buñ duñ ko bàyyi ci réew bi dañ koy indi suñu réew ñëw investir ko fii kon war nañ leen mën a jàppale am na ñoo xamante ne waruñu ko mën a sax seetaan seen doom di dee ci ndox mi yooyu noonu war nañ leen mën a accompagner teg leen ci ay bonnes conditions ñu dem ñëwaat loolu mooy dëgg am na yoo xamante ne mooy loolu rafetul quoi dafa dafa dafa rafetul kon na si état bi jàpp rek Eldorado bii nii ñàkk pexe la kese gars di ko def fii moom ku fi nekk si famille sa papa yaakaar la sa yaay yaakaar naa dem su ma deewee ci yoon bi peut-être da ngay ne seen coono peut-être mën naa wàññeeku bu yàlla defee nga dem réussir aussi loo ñëw loo am àndiwaat ko ci biir kër gi te mënee leen réew wala ab dëkk mënut a développé te jeunes yi liggéeyuñu Sénégal tey boo seetloo jeunes yi ne ci mbedd mi tey di chômer ñu ëpp que ne ñi liggéey. non bien sûr parce que boo xoolee tey jeunes yi fii tey bu duggee ci koñ nii boo toog say gars bu ñu nekkee 5 wala 7 boo xoolee tey boo ambulant am dara gars yi dàq la ci marché lu ci marché ci maire yooyu nangu ko léegi nga war a dépense waaw war nga yor structure tey ji ñibbi tey ji gars yi waaw nga kar la nga am benn benn benn boo xam ne boo ko yi jëlee fu mu toll ni foo koy waxee foo demee looy dépense woo mooy loolu il faut ñu jàpp ci il faut ñu jàpp ci bu baax a baax gars yi il ñu jàpp ci tamit te gars yi muñ te xam ne nag lu lu nar a neex rek day metti noonu la demee man foofu laa ko teg comme sama ko sama rabu lamb bi nii loolu méttee nii noonu laa ko jàppee quoi ba Seydina Ahmed instant yi noonu la. bu ko weesoo nag instant yi nii nag maa ngi sant waa Rijal Diop bi yëpp maa ngi leen sant waaw parce que tey jii nii waaw ak ku ci mel ni laay sama doom ndey booy booy morolan bi waaw xam nga di sant gars yi di leen gërëm ku ci mel ni Cheikh ay ñoom Fallou ay ñoom Cheikhouna ñoom Zal ñoom Faye ñoom Bas waaw ku jëm ñoom ñoom Moustapha Ly ñooñu ñëpp bàyyiwuma kenn ñëpp kenn bàyyiwuma kenn kenn ay ku ci mel ni ñoom Alassane gars yi bi ñu am boo amee combat boo amul combat yëpp dañ ciy sonn dañ naan sa waaye da war a bëre nangam ak nangam waaye du ci man lu ma sañoon man chaque jour damay bëre waaw du ci man waaw maa ngi fi da jàpp ci sama liggéey bi rek waaw maa ngi ci pare bi nekk ci faux yi nekk ci bagage yi boo gisee atelier bi moo nekk nii ci la gars yi nekk nii quoi ci ci la waaw waaw moo xëy ñu tëdd quoi ñu dañuy xëy waaw suñu wàccee dem waaw suñu wàccee yaam nga xam lu ñu fekk xam nga ñi bëgg nañ liggéey waaw non bien sûr bëgg ne tey làmb laay suivre su ma xëyee dem tëdd nelaw ak ah, ma xëyee dem taxawal kër jàmbur yi aman ah, ba ma nee Pape Yékini Pape Yékini léegi musuma taxaw buntu kër ministre wala buntu kër am musuma taxaw ba ma dalee bëri bi léegi la musuma taxaw buntu kër maire musuma taxaw buntu kër benn eh, am na nara nangam ak nangam lu ko def sama ngor may ma loolu waaw man sama dignité laay demee ko noonu la. maa lay bëggee. waaw fii la ëppee. yàlla sa jàmm yàlla sa yàlla sa jàmm yow yow it. Bango laa nekk Bango écrit Soumbédioune. Bébé Diène bu fekkee combat benn man fonk naa ko téeméer. barke sëñ Abdou Karim Mbacke boo taxawee dama lay duma boo bëree dama lay daan. bu fekkee gor la rek yaa ngi dégg de na taxaw nu jaayante ko ma ak moom waaw daa ñeme xeex ak man. ñeme na lu ko raw. barki Seydina Limaamu booy kareet ko xeexal ak man pour muy leer. barki Serigne Touba Mbacke booy kareet ko xeexal ak man. Ali Mbaye mën na toog kër ga. Sidaati mooy ñëw. wax oh, xaali mbay dogoog xaali mbay la ne na ci bokk yam day toog kër ga bébé bi ñëw. waaw damay toog kër ga boo xamee na toog kër ga xajal tournoi bi tournoi doom ñëw ak ñeneen ñeneen ñi de incha <laughs> waaye xaali mbay la waaye dëgg ngay ndellu rek xam naa sonn si ma wala daggal yàpp ak foie tabaski bi xam ma nga lekk ba suur xëy lënd bi dem saal pompe say affaire bàyyi ma njoot bàyyi ma la xel sax. ah man day mbër mu xees ma daan de. en tout cas booru bu xees bu daan